bi ne day démb altine ju lëndëm crise la ndax nag ñàkk nañ ñaari kàngam fii ci xew bu Sénégal susu a dellu si ci li nga xam te moom moo di faatu maire bu Dalifort mi nga xam ne nag wujju na suñu borom ndax covid boobu moo fa jaar mboqul ma la covid lakkal nga ñu sonal nga ñu xanaa mënu fay jógee àdduna bi nekk si jàmm nekk si afiya yaa ñu lakkal yaa ñu lëjël susu a ñëw ci bu baax a baax ndaje bi nga xamante waroon nañ koo amal waaye dañ kaa mujj a gàntal les éco yéen kaay ne nag covid 19 ma ngay profito di def ay njombem waaye na jàpp ne nit ñi mere nañ ko trop te it lakkal na leen saful kenn te ñëpp la soof lakkal nañu lëjël nañu bokkul ma la war nga fee jógee ba tey ci journal les éco yéen kaay di wax nag ne li nga xam te moom di général Mamadou Niang ku ñu xamee woon la ci taxawaayam ak jaar-jaaram ndax militaire la woon boo xamante ni ci wàllum dialogue bi am na ci taxawaay consensus ne ko danu ma ndax ci atum 1960 ba suñu jonn yàlla tey am na ci taxawaay bu mucc ay bu mu ci def Idrissa Diallo nekkoon na tamit nit ku taxawaayam ak dignitéem engagement am kenn di ko naatable Idrissa Diallo ci lànket yi ne kaay ne nag ñàkk nañ dëgg-dëgg kii nga xamante ni moom moo di nit ku loyal dëgg woon te it amoon taxawaay la libération yéene kaay ne Sénégal jooy nañu Idrissa Diallo jooy général Mamadou Nioro moo tax xit bi yéene kaay tuddee ko altine gu lëndëm crise metti woon lool ni ki démb ci ngoon ba xabaar yi waddee maire bu Dalifort général du Nioro wujji nañ suñu borom suñu boroom mi nga xam ne mission bu jeex moo koy jeexal tamit le quotidien yéene kaay ne mission général Mamadou Nioro daal nay jeex ci kaw sax mën ñoo jàpp ne jirim la waxtaan ak dialogue Le Témoin yéenekaay ñëw nag ci atum ak ni mu naqaree te bëriw tiis atum moom at la boo xamante ba alaa yow mi dini kenn du ko fàtte ndax at la boo xamante la ci nekk ci tiis ci musiba ci nag ay tooxi ci nag ay jafe-jafe ak loo xamante wàllu naqar la kenn du ko fàtte ndax le témoin yéen kaay fësal na ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci dëdd wuy ji suñu borom nee na nag Pape Diouf ci la dem Pape Bouba Diop ci la dem Serigne Pape Malick Sy ci la dem Babacar Touré ci la dem Bamba Ndiaye ci la dem Iba Der ci la dem Seyda Mariama Niass démb ñu koy jëbal suñu borom jooy ronqañ yi faregul ñu tàggee ju général Mamadou Niang ak ki nga xamante moo di sa jàll ñoom ñoo nag wuy ji nañ sunu borom le témoin yéen kaay ne mi ngoog moom at xamante ni kenn du ko fàtte moo tax tiitlu am na ak dëddug ñenn ñoo xamante ni mën nañ leen duppe ay VIP aja tàggoo am na général Mamadou Niang wuy ji na jiite woon lii di nag dialogue politique bi politique ak lu soxal wàllum niinal yenn ci ville fii ci Ndakaaru cool yi ba tey mi ngi ne cobbay pënd ba wureegul vox pop ne loo ci mën a dégg mooy assemblée nationale jéego ñuy teg bu fekkente ni ni sotti na mooy nag lu jëm ci niinal ville yi dana am te dellu duñ ci dellu ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi mooy fukk ci ay métropole daañ leen dëxëñ ngir nag ñu wuutu yenn ci ay ville ak bokk na ci nag gis-gisu Omar Gueye ndax nag Saint-Louis Thiès Touba Mbour Ziguinchor Kaolack Kolda Tambacounda Kédougou Matam ña nga ca biir le si ko yéen kaay ni Oumar Gueye delluwul ginnaaw benn yoon lu tonne tat fatal ay nii nee nag lu jëm ci wàllu yi amu ci lenn loo xamante dina ko ci dellu ginnaaw tey ndaw yi di député yi ña càmbar wàllum indemnité di ay neexal jëm ci chef de village yi journal bi nag ne day lu jëm ci wàllu wooye eh, bokk na ci Déthié Fall ak dialogue politique yi soxal na Saliou Sarr ak taxawu fal waaye coolaa nga ca ndax nag ñu ci bëri dañoo lànk kandaaral ci waa front de résistance nationale ne ab mouvement du leen coordonné ci dialogue politique bi Walf Quotidien ne politique kay moo taxi lu nekk di am ndax nag ku yaakaaroon ne Déthié Fall ak Idrissa Seck dañu tàggoo doo ko mën a gëm ndax nag lu jëm ci wàll wi bokk na ci fi nekk ni seen déggoo neexatul est du sax ab téléphone la faral di déggoo jamono ji déggoo nag xaw ma dina am wala du am waaye nag bennoo ak APR ñu ngi fi mu nekk ni ngattaawu wër ndomba kii di président Macky Sall président Macky Sall fi mu nekk ngi ci toog président Macky Sall bu jaaxle wutit waa Tivaouane mer nañ jëm ci moom ndax nag lu jëm ci ay jegeñaalu xalif bi ñoo mer ba futu ci ni nga xamante noonu la ñenn ñoo xamante nag ci wetam la nekkoon doon liggéey Cheikh Tidiane Sy Dabakh bokk na ci poste ambassadeur bañ ko joxoon ñu daal koy nangu ci moom li ñu nangoo ci l'observateur xabaar baa ngi mooy scandale sexuel bu ñu nemmeeku ca Louga jëm na jëf ñaaw yi dëppawut ak jëfi nit ndax nag li indi li nu mel gérant da doon jàppale xale yi dimbale googee ñoom nag ndekk dañ ko doon dimbali ko woowu maanaam def ci jëfi ñaawteef ak jëfi salte yan ci yàlla mos waa ji mu ngi tuddoo R Minquez alias tonton tubaab cey lii réewum Sénégal waxtu nekk nopp dalooti xoolal ma liyeeti rek ji jëfati rek cey lii naa ci yam fa ñu yendoo ak jàmm ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laa ne waa mi naan électricité ak si nañ yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa biro sa kër